Hey, guy baby queen. aj aj nañ xewal jox ko ci seen mu sol kii commencé ay ca Bébé Gouy Gui ziar nañ la am alléluia alléluia alléluia mooy ñaan si Yeesu Kirista di prière si Mariama bi solo na di ñaanal suñu waajur yu jigéen yàlla na fi yàlla baax ba si kanam di ñaanal suñu suñu waajur góor fi mu tëdd yàlla suuf si waaj si kawam di nuyu sama waay fi toog ñëpp ku def sa turam sa sant ak ñi nga xamante ne ñun mbëri ñoo leen tax a déplacé di nuyu ñi nga xamante ne ci dëgg làmb ji maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ñaanal sponsor yëpp dañu ko war a wuyu si bu baax. di ko waale sama benn grand boo xamante ne waa waa ji production dina production maa ngi nuyu bu baax a baax ñu ngi lay jàppale saa su nekk. béyee waa béyee waa sama jigéen maa ngi béyee waa béyee waa bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di ñaan képp ku mbëri géej yàlla na la yàlla may ndam. asalaamaaleykum maa ngi sant ñu fi toog ñëpp ñu fi nekk sant ma ak sa sant di nuyu sant fi toog yëpp di nuyu waa Pikine di nuyu waa Géejawaay Géejawaay bu ñuy wax nii sax man maa ngi gën a xam Géejawaay Géejawaay bu ñuy wax maa ngi gën a xam Géejawaay man dama dawal saret pour fooraay def lépp kii man ak moom bokkuñu barki Seydina Muhammad bu arbitre soufflé nga man ak moom bokkuñu man déggoo ma ma bëri la liggéey liggéey ma ko kii bu làmb bu arbitre soufflé daf may jébbal ji barki alxuraan su mayee ma duma ko maa ko dàq bëri fuuf am na loolu dañ ko taalee ngay jéem a dof wala la mu ay déggoo géejawaay laa juddoo yaroo fa màggee fa te lu muy si géejawaay dëgg la mbër la ñàkkum am supporter fu mu nekk man waa Pikine dañ may bëggee bu baax a baax a baax di dugaat bu baax la le na yàlla may xam nga ma bu baax a baax a baax ñu yëpp xam nañ amateur yi fi ma yëpp xam ne ba léegi baax bu bu yomb lii fu ma jógee bi nga bi nga joxoon adversaire bi nga jël yow xam nga li ma wax bu baax. waaw lamb boo doy waar rek. yàlla xam na ni. kii bi ñu sax dafa am lu baax dafa am combat. lamb boo doy waar rek bañ a def en place. sa waay xanaa doo ma dégg yow lamb ji soufflé lamb ji dañ koy joxe boo ko dégluwul doo wala. abi mooy soufflé lamb ji soufflé abi mooy soufflé. sëñ bi maa la gën a toog fuuf maa la gën a toog. maa la gën a toog ñu ne sa tur de Fallaye maa leen ndoxum bi damaa ñuul kuux. man la ndubin bi. waaw déggoo na la waaw. ki nga def faalaay. taxawaa bu neexee yàlla suñu borom dañ lay daan ba toog sa kaw. sëñ bi xanaa déggoo na. ragal lu mel loolu mais bu arbitre da ngay. bu neexee yàlla suñu borom taxawaa. te bu dee doole moo ko dàq bëre. bu dee doole moo ko fu doole. jërëjëf ci laa ko may man mbër taxu ma pour bu ma doomu mbër bu ma jarbaatu mbër sama yaay ma fekk ci mbër. dañuy continuer ba liggéey ba toll fu mu toll nii tey. ba may entraîné. loolu liggéey sama liggéey. tey combat bi baax jàpp nañu ay xoolul kii bi su ma ko jàppee. nga xam ne man dama bokk si làmb. jërëjëf bébé boo xool si làmb de. da ngay taataan làmb. kuy taataan làmb ak ku bokk si làmb bokkul. da ngay xaar làmb taw tuuti mu benn pot taataan. d'accord da ngay taataan boo xool si làmb de. billaahi yow ak suuf bi nga xam ne man ñoo ko séq. loolu bi ren te dee dañuy luwe oto. ñii ma ci fay. dañuy luwe oto day jaay oto. dégg nga ma ne kenn mënu leen fay. waaw waa ren Dakar kenn mënu leen fay ñoo fi def la kenn mësul def. bii grand combat. dinañ ñaanal liggéey bi jëm sa kanam. staff bi gën a jubóo seen biir. li ñu yóotu yëpp. alors maa koy ñaanal wér a wér a wér a wér ñaanal ñëpp. ñaari taal di nuyu da ngeen di dox rek ñëw. man dox tey dox ñëw. pikin dox lu dem. du ma dox dem damay jël oto raam naan. jërëjëf wooteel. maa ngi nuyu waa Guèye bu baax a baax a baax damaa mel ni Poxla maa ngi ko déggee bu baax di ko ñaanal jàmm le 25 bu ñëwee bu feccee fecce la fi am digal waa Pikine. neexee yàlla bu bëree ma daan ko bu xeexee ma duma ko mu daanu bu neexee yàlla suñu borom maa ngi a waa Guèye bu baax di bëgg bu Ndiaye Ndiago Ndiago 100 pour cent yi dama sax maa lay ñaanal yàlla na la yàlla may ndam képp ku jógee Guèye maa ko bu bëggee koy bëggee bu baax a baax ñu ma àndal maa ngi bu baax a baax a baax a baax ko sama ku si mel ne Ibou Ndiaye Diofior ku si mel ne Merlin Pape Kane ñoom ñëpp maa leen jaay Afia Bour Siteu Laurent Boy Plateau ñun ñëpp maa leen nuyu ñun ñu am jàmm di nga gis lamb ju neex bi